Salam wa rahmatulah mbok internetu Safina TV euh, tay mu nek euh, journée spéciale des handicaps di le 3 décembre euh, wa Safina defal len doxantou ba fi nga xam moy mooy Sicap fekk ci fi ben couple couple bu xamantene machallah dañuy def lu yéeme lu doy war de mbokk soo xam couple bobu ñoy ñan ak lan la ñu def rek da nga may daal di rek ñu dugg ci biir ñu dalal ñu ñu xol ba xam lan mo am ci biir ak couple andi ko waxee won rek ñu ngi dugg fi fekk ci ki nga xamantene mom moy Ba. ñu fekk ko fii si benn bërëb bu xaw a yéeme lool te taaru macha allah mu nekk fii ginnaaw buñ ko nuyoo rek dañ koy bàyyi mu nuyu téléspectateur téléspectateur yi ak mbokk eh, mbokku internetu Safina TV Mohamed asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm seen teewaay bi ngeen teew fii ci kër gi ci atelier atelier bi bi nga xam ne fii lay liggéeyee muy eh, muy vision du cœur atelier bi fii laay liggéeyee waaw maa ngi ci. maa leen di nuyu di leen ziar di wax ne daal kontaan naa ci waaw kontaan naa trop ci seen ñëw fii ngeen ñëw fii fekk ma may liggéey waaw. waaw macha allah comme Mouhamed fi ñu la fekk Mouhamed ñu fekk la nga nekk nit koo xamante ne dafa am lu xaw a manqué si moom maanaam li ñuy waxee les personnes handicap waaye teewu dañ la fekk ngay nekk liggéey waaye laati loolu ñu laaj moo xam ne handicap bi da ko judduwaale wala dala dab. waaw handicap bu may judduwaale mooy handicapé physique bi waaw dama ko judduwaale moom physique bi laa judduwaale parce que bi ma nekkee xale ba léegi ci vraiment handicapé laa woon mais daaw moo tere def lu ma war a def mais handicapé deuxième handicapé bi mooy handicapé visuel bi waaw boobu moom daf ma dab waaw daf ma dab yàggul yàgg na yàggul parce que ça fait maintenant euh, presque dix ans ma dabee te loolu tamit cause bi accident la dafa mën naa wax ne accident la mën naa wax tamit bon kii la agression la parce que dama doon yéeg ci oto dama doon yéeg ci oto am koo xam ne dafa ñëw jël jël kuddam dóor ko ci sama bët bët bi daal di daal di tuuru jéem nañ ci lu nekk nag mais mënu fexe ba am kii dem nañu hôpital def nañu lu nekk bon ça ne ñu toogaat quelque temps deux ans après trois ans beneen bët bi jàpp moom tamit commencé di wàññi vision bi di wàññeeku noonu la continuer dem dem ba jàpp ko ba gistul dara waaw mais aussi bon début bi xawoon na metti tuuti parce que boo lu lay soog a dab moom day metti waaye boo gëmee sunu borom gëm yàlla sunu borom bon su bari day kii et nga am entourage bu bien aussi tamit boo xam ni sa famille jàppale la téye la ah sa soxna yooyu yëpp ak say doom ak tout ñëpp taxaw ci. mais ak famille bi mais dangay ngay mujjee da ngay mujjee am courage waaw di góor góorgóorlu parce que man dama yàgg liggéey avant sax bu ma nekkee handicapé dama yàgg liggéey parce que man maa ngi commencé liggéey à l'école des beaux-arts laa njëkkee travaillé foofu laa commencé di jàng en cent 1981 ma def 4 ans sama diplôme waaw mais lu lu valide doon def dama koy def waaw damay def peinture modelage yëpp dama ko doon def te pourtant benn loxo laa yor mais terewul lu mu bëgg a def dama koy def loolu moo ma may courage may gën a góorlu ba ma fa jógee tamit daf ay exposition exposition Sorano hôtel Dranga yu bëri def naa ko bokk ci association yi tamit association euh, des plasticiens du Sénégal parce que ñooñu tamit forgé nañ ma parce que euh, du war ay handicapé fa nekk ay ay valide ñoo fa nekkoon waaw ma nekk ci di liggéey ak ñoom aussi ba ma fa jógee dama dem ci handicapé yi ñoom sax jot naa liggéey ñoom ba def ay exposition exposition Sorano def nañu exposition yu bari ma bokk ci ñoom nag waaw ba ma ñëwee bokk ci ñoom togguma courage les bras dama leen proposer affaire u art man leen dañuy war a def fii sérigraphie dañ ko def ñoom tamit ñu déggal digal boobu dem toppatoo bagage yëpp toppatoo projet yi ba mu aboutir ñu commencé di liggéey foofu waaw il faut commencer en 87 88 87 88 ñu tàmbali boobu sérigraphe bariwul fii Sénégal waaw ñu fi nous bariwuñu des nekk na ñun tamit am di de ay handicapé di nous métier diplôme mais je jëw jàngaat leneen waaw ma def ko trois ans en 90 a fekk na tubaab yi nga ñoo aussi ñëw jox ñu matériel nekk ci di liggéey noonu la ñu commencé di continuer liggéey bi sérigraphie bi di dox ñuy dem ba fu ma nekk ba ba keroog nag may am accident bi ba ma amee accident bi nag problème bi am ma ne léegi su ma duma ma mën di dem tout le temps di ñëw naa jéem a créer sama atelier kon na sama liggéey parce que gis-gis ci xool la waaw du question ma xool nii gis lumière bi non man yàgg naa gis lumière yàgg naa xam lu bari ci ci ci ci àddina bi gis naa façon lu ne gis naa ko waaw kon image yooyu day nekk en mémoire ci man nekkul loo xam dama koy jël di ko euh, day nekk loo xam ni man vraiment man dinaa ko fàttaliku daal dinaa ko fàttaliku waaw loolu moom c'est important moo tax ma ne nag naa continuer sama art bi mu doon def parce que man aar kii laa doon def peinture laa doon def ak gravure sérigraphie ñett yooyu laa doon def waaw waa ñu fekk la fii ngay defar ay tablo yu mucc ayib macha allah te yàlla def na ne say bët gisatul avant say bët di gis nga jàngoon tablo bi say bët muuru ba tey yaa ngi continuer defar tableau yi wala dafa am ku la koy defaral. ci man la nekk tableau yi ci man la nekk li may def nii man maa ngi koy defar sama bopp amul keneen ko ci jàpp bañ ne sax ba pinceau duma ko du ko faral di utiliser lu bari dama bëgg a dem contact am am contact avec la matière matière bi may liggéeyee mooy loxo bi nga xam ne ko teg di nga xam fan nga ko teg. te lépp nag ci mémoire lay doon parce que couleur yi xam naa ko yàgg jàng naa ko xam naa couleur yëpp xam waaw. teewul yaa ngi toog di defar. yéeg lay demee sama yéeg-yéeg lay dem ci peinture bi ba mu wóor na la lii su ma defee fii couleur rouge wala couleur orange wala couleur naan dinaa ko xam waaw techniquement bi nag man maa ngi utiliser sama technique à ma manière maanaam yow yaay toog xalaat ne couleur bii moo compatible wala leneen loo sensible. li may defee lenn rek la. damay jël ne leen defal leen ma bleu defal leen ma rouge defal leen ma orange wala man maay choisir sama palet yaa ngi may dégg su ma ko delee ba teg ko man maay xam fu mu nekk fu ma koy teg xam naa couleur yi ni ñuy agencé ni nga koy agencé xam naa ko <laughs> waaw boo jëlee ay couleur couleur bii ak couleur jaune wala couleur bleu dinaa xam fu ma koy teg dinaa xam ci ban famille la bokk waaw su ma ko tegee di jël nag di def graphisme waaw léeg-léeg ma def collage léeg-léeg ma léeg-léeg ma agencé ko boole ko ñoom ñaar ñuy dem mais ci mélange boobu da ngay gis day am mélange ci biir waaw day am mélange ci biir mélange boobu dinaa koy sentir dinaa koy xam waaw du bokk ak ay dessin wala ma dessiner non non non bii abstraction la li ma koy li may def yëg-yëg la waaw boo xam ne dama koy damay dem directement waaw damay damay ñeme couleur yi nag waaw dama koy dem directement te li may def yëpp li ci ëpp sama loxo laa koy defee soit ma jël raclette wala ma jël benn matière travailler ci loolu naa ko def loo yàgg nag di ko def da ngay dem ba ba ba mu ñëwaat say dina ñëwaat sa xel dina ñëwaat ci sa ci sa xol nga nga génne ko. waaw Mouhamed tableau yi nga xamante ne yaa ngi koy defar da nga si par commande nga koy liggéeyee wala dafa am bërëb boo koy yóbbu di ko jaay. non fu mu nekk nii amaguma ci commande mais damay liggéey di collectionner rek ku su ma gisee koo xam ni intéressé na la ah nga ñëw ñu waxtaan comme ça ñu seet naka luñ koy doxalee ba bu ko intéressé daal na ñëw ku intéressé mu ñëw mais pour le moment damay damay damay damay defar di teg du ma xaar damay defar rek su ma amee moyens yi tuuti ñu jàppale ma surtout sama famille yi jàppale ma ah ah ñoom ñoo fi nekk di ma ci jàppale ak comme ça ma mën a jënd ay matériel pour le moment nii di ko def cliente yi ñu ngi ñëw di jënd si wan wa non instant yi ñëwaguñu nag parce que ñu ngi ci ñu ngi ci commencement bi di liggéey mais ñëwaguñu nag wax dëgg yàlla bëgg naa nag ñu ñëw bëgg naa ñu ñëw nag waaw xool si li may def ci espace bi gis ñëw gis li may liggéey vraiment parce que du du li ma liggéey nii du du nii rek lay demee parce que di nga koy cadré après bi ma fekk ci liggéey nii di nga koy cadré très bien fait lépp lu ñu ciy def comme cadre li nga xam ne daal moom la euh, artiste war a def ci cadre moom li ñuy def ci cadre yi bu mu pare ñu koy defar bu mu bien bu mu rafet waaw soog ko teg proposé ko nit ñi waaw bëgg naa tamit def exposition maa maa ngi su suñu defee collection les collections di collectionner nank nank bu yàggee mën naa am ay cinquantaine de tableaux wala quarantaine de tableaux ma def exposition xam naa nag euh, duñ ko jàpp heure bii parce que xam naa année prochaine lay doon année bii ñëw fin décembre par exemple xëy na le 3 décembre bee di ñëw suñ ko fekkee jàmm man na am ngeen dellu siwaat fii ci galerie ba ñu mën ñu mën a def exposition te bu boobaa foofu la affaire bi di neexee parce que di ngeen gis dimension yëpp ñi ay tableaux yu yem la tableau yi 74 la sur 54 yooyu bon dina am ay tableau yoo xam dina dem ba 2 mètres waaw bu boobaa nag dinañu gën a gis nag sama liggéey parce que bu boobaa dañuy wax ne comme ko def ak defu ko <laughs> bu boobaa dinañu gis saa waay toog ci kaw <laughs> toog ci kaw tableau bi <laughs> waaw tableau 2 mètres lay doon wala 1 mètre 50 waaw tey waaw moo tax ñuy konk bëgg nii la ñu di ramper ndànk-ndànk mais ku bëgg na ñëw visiter xool li ñuy def. yàlla na yàlla barkeel bërëb bi ñu la fekk nga fi nekk di daan sa doole yaa ko moom wala da nga fee luwe. non luwewu ma fi fii moom suñu kër suñu kër famille la waaw ak samay rakk ak sama yaay ñoo fi nekk waaw sama rakk moom moo moom moo topp ci man mi ngi nii mooy Seynabou moom moo nekk nii ku ma jàppale ku ma ku ma jàppale vraiment ci lépp waaw sama njaboot ci lépp waaw mag soxna si Aminata Awo Ba Awo la. mooy awoon Aminata di awo <laughs> ba fay waaw sant waaw nekk sama collaboratrice bu baax moom moom moom moom moom tamit ci ma ñi ma gën a fonk waaw gën ma génn sax ma def lii ñoom ci la bokk ñoom ñaar ñii waaw c'est très important li may wax nii waaw ñoom mooy yëpp ñu ngi koy teg pour ma mën a def li ma war a def parce que xam nga tamit gisoo am handicapé physique ba pare gisoo dafay travailler nit mais soo gisee ma am courage bi mel ni ma war a mel ñoom ñii la ak collaborateurs yi waaw ak sama ak sama waajur bu jigéen waaw ak samay rak samay frères ñëpp daal famille bi yëpp ñoo ci taxaw vraiment suñ ma soutenir woon kon egg naa teer parce que da am xalaat yu metti waaw da nga wax mais man ma doon gis gisutuma léegi mais nu mu demee nii mais ñoo ma yëkkati jàpp ma ci téye ma dooleel ma ba ma egg si fii dëgg yàlla ñoom ñëpp jàpp nañ surtout nag surtout vraiment vraiment ñaar ñi waaw surtout damay wax ni c'est dama koy wax damay wax de parce que tout le temps ñu ngi may nemmee xoolal suba teel la fi ñëw waaw dégg na yéen a ngi ñëw mu ñëw fii bàyyi liggéeyam bàyyi lépp taxaw ñii tamit ñoom ñëpp soxna si ci fajar la commencé waaw di seet lan la ñu war a def téléphone bi fii jàppal bàyyil mais loolu c'est important handicapé suñ ko soutenir tuuti rek mu dem parce que affaire bi ci bopp la du ci affaire matière ay ay ay loxo ki ay tànk yooyu non xel la xel mooy dem mooy defar lépp boo amee tamit nga nekk nit ku bien portant <laughs> te amoo xel tamit ndoo dem fenn waaw ñun nag handicapé yi man maa ngi leen maa ngi lancé ne nañu góor góorlu rek ñefe waaw dara joomu fi dem lu nekk mën nañ ko am waaw macha allah yaa na yàlla doolu sutura Mouhamed di nga am ay jafe-jafe si wàllu liggéey bi non liggéey bi moom amu ci jafe-jafe ci jafe gis naa dem naa extérieur ba gis lu ñuy def waaw kon kon kon su ma ñëwaatee fii war naa def loo xam ni lu nit ñi di gis la daal du ma ko def parce que dama bëgg ko ma yërëm ak yooyu non non man li may def dama koy sentir def ko ci temps bi ma ko waree def bu boo boo la ñëwaatee fii suba leneen laay def lu bokkul ak lii waaw parce que loolu laay sentir li may solee mbubu yaa may dëgg li may solee mbubu tey deux jours trois jours wala deux jours nga changer defaat leneen ah noonu la tableau di mel tableau tamit da ngay continuer di avancer waaw te man li def mit xam ko bu baax a baax a baax a baax macha allah. Euh, macha allah Mouhamed euh, tey mu nekk journée spéciale des handicapés sa morom handicapé yenn saa ci talibeeg yooyu lan ngay wax sa morom handicapé yi. waaw sama morom handicapé yi ci ñaari côté benn côté bi bon du seen coobare nag waaw am na ci boo xam ne du seen coobare mën nañu nekk ci tali di yalwaan noonu du seen coobare parce que xam nga tamit nit ki bu amul jàngul jàngul métier il faut mu dem il faut mu dem il faut tamit famille di leen soutenir quand même parce que ci famille la commencé man wala même ay affaire wu sax ci mbedd meeg yooyu na famille yi jël handicap yi teg leen fi leen war a teg loolu am na kër yoo xam boo fa demee escalier la pour nga jàll problème la handicap bi mën na fa jàll est-ce que ñoom bu ñuy tabax sóoraale nañ ko loolu c'est très important <laughs> loolu moo jiitu est-ce que seen toilettes yi correspondre na ak ak handicapé bi fu mu war a fu mu war a dem da ngay dugg ci kër goo xam ne boo duggee ne kii handicapé du fi dem man mënu fi dem c'est pas possible waaw loolu dañ ko war a regle soo demee dans les dans les dans les sociétés war nañ fa def ay rampes yoo xam ne handicapé bu ñëwee day jàll final day dem ascenseur yi dañ fi war a bàyyi place boo xam ne pour handicapé la bu ñëwee ñu yëkkati loolu moo am feleen te ñoom feleen la ñuy jàngee fi ñu jàngee Europe li jànge jàngee États-Unis kon pourquoi ñoom li ñu jàng foofu duñ ko def fii ñoom bu ñu nee foofu loolu moo fa am ñu ñëw fii war ko mën def duñ ko def handicapé tamit dañuy yalwaani parce que kenn jàngul su leen jàngul duñu duñu école de formation ñu ngi wax formation temps yëpp formation euh, kii ak yooyu mais mais nañuy tabax ay école de formation pour les pour les pour les handicapés yoo xam ne bu ñu ñëwee fii ñu ngi nekk ay mécanicien xam naa nga ne kii mécanicien nan la ko handicapé war mel mais handicapé mais mécanicien handicapé la bu ñëwee day dugg ci suufu kii bi ci suufu oto lay dugg ah di réparé day tëdd ci suuf il est handicapé bu sëggee tamit doo xam ne buk nit la bu bu bu bu amee kon lépp lu ñu war def ba handicapé yi jàngi école école laa njëkk a wax sax école ba am li am maîtrise ci li def ñoo jàng si ñëw def formation ñoo ngi nekk ci mbedd mi bi leen formé woon du ñu nekk ci mbedd mi loolu leer la kooku kooku amul sax dem ñëw boo leen ne nag da ngay ñëw da ngay ñëw man am ci expérience nga ñëw ne leen boole naa ci benn projet nangam nangam projet mais projet boo xam ne ñoom xam ñi war a lekk war a añ war a reer ah war a ndékki projet bi joxu leen dara dañuy dem seen yoon delluwaat foofu. di leen gërëm di wax ne na na na état dimbali handicap yi du question joxe ay ceeb wala joxe ay affaires yooyu non non nañu nañ leen jàngal université yi ñu defaraat ko bu mu baax école yi ndaw yi ñu defar ko. handicapé yi di intégré au lieu ñu ber leen duñu leen ber duñu leen di boolee waaw taalibu daaw moo fi nekk moom kenn rek leneen amu fi di leen def ku mel ni def taalibu daaw dañ ko def ci yeneen yi. waa soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax mën nañ xam tur bi nga jàkkaarloo ko ak respectateur Safina TV bi fii si Safina. waaw man maa jàkkaarloo yéen kay maa ngi leen di nuyu ci seen taxawaay rafet na ñu ngi leen di ñaanal suñu bopp ñu ngi leen euh, di nuyu bu fekkee sa xamal ñu ngi leen di fàq ci ñoom kontaan naa ci yéen. Amady Diané soxna Awa ñu fekk la fii nga nekk. Euh, ak sa borom jox sa borom kër yi nga xam ne loolu moom tant que jigéen naka la ko ak moom naka la ko dundee. ah handicap moom ci bopp la rek ci bopp la moom sinon man dama ko jàpp comme ban parce que bon bëggal tamit amul triche ñu dalee bëggante ba léegi ci ren 18 ans ci ren maa ngi sëy bi am nga kott bi deux deux deux semaines waaw dama ko bëgg bëggal sincérité. feeñ ko te yàlla rek a tax ñu góorgóorlu di liggéey suñu liggéey te bañ a tàllal loxo. bañ a tàllal loxo boobu moo tax ma fekk que fii nga wuy liggéey wàllu tàmbali yooyu mais dafa fekk ngay defar ay mën yi ak ay garab mën nañu si waat mën nañu liggéey. waaw mën naa leen si wax kay naa ci sawar waaw liggéey bi damay jënd samay garab pour ma daal di ñëw mélanger samay couleur ma daal di ñëw tiire garab motif bi ma sentir rek. di ko tiir di ko weer man sama borom kër ma di ko jàngal séeréer laa ma ko di ko jàngal ba mu bëgg kaw la léegi ma am ci sama diplôme par la suite léegi après moom ma amal benn handicap ci diggante bi mooy vision bi en tant que personne handicapée physique et visuelle man ma jël méthode sérigraphie bi continuer ko à ma manière ci affaire. الذراع المبتة إلى جميع التامة الذراع المبتة باليمين Yan, isang kisabok. Kinayangan nyo, wala na ang ikaman mo. Effectivement, yan na sa'yo. Kiliyan nyo nyo sa mga yan na sa'yo ng mga kayo. Kaya dito din. Para mo nyo sa mga wala mo, mga kayo sa mga. Ang mga, eh, kiliyan nyo nyo din dito, mga dito ko dyan. Tapos, sa inyo, mo din sa mga. sa waaw jafe-jafe moom du ñàkk ci liggéey parce que léeg-léeg nga gis client bu la woo la te du la duggale la avance mu war a yow kutoo kut nga def si sa feemu bopp nga defaral dara yi nga jënd dara jënd pour yi xam nga affaire yi yomb su ko defee nga indi jaay ko yenn saa yi nga indi ba nga yaakaar ne di nga jël fan yi moom nga def nii donc nga yóbbu dara yi kii comme mu daal di dugg na xam nga xaalis loolu yëpp dañ tamit sa yaakaar su ma lépp ci liggéey bi nag dafa nekk nga góorgóorlu ba mën a assister loolu ba mën a nekk waaw subvention yi nga xam ne état mu koy jox les handicapés ndax agsi na si non accès bu ci ñun accès bu ci ñun waaye ceeb ba nag moom ak déwlin bi moom ñu ngi ciy félicité monsieur le président Macky macha allah jot nañ ci suñu xaalis xanaa kay lu ñuy wax mooy carte bi carte d'identité bi waaw ñun farlu ci bu baax a baax a baax. am na carte d'identité. waaw am naa sama carte. monsieur Ndiaye Faye. non non pas encore. ça fait combien de mois. am na 4 mois rek 4 mois. te monsieur Ndiaye Faye ak monsieur Samba. non non non parce que boo demee au niveau de poste ñu ne la benn bi léegi da ngay toog kër bu mu woo la waaw. fi nga nekk liggéey ndax am na autorité bu commencé ñëw bu leen ñemee di si wax. noonu no wu pare lay wax autorité ah xanaa di leen ñaax rek dem naa mairie Sika jaabante naa ko ba sonn ma gis secrétaire wala ma gis adjoint au maire mu ne la dinaa ñëw dinaa ñëw par la suite doo leen gis après ma dem na ba découragé waaw par la suite daal yéen daal ñu ngi leen di sant yéen ñi képp tey am seen ñu ngi vraiment ñu leen di gërëm di leen sant macha allah balaa ñu lay bàyyi en tant que jigéen ñi sëy wala biir kër jàng en même temps ba am di si di di ñefe rek xam am tëdd kay moomoon mais boo di jéemal sa bopp yàlla dala ciy fekk si Di ku fi am handicap ci bopp la handicap bu dara sa cër bu mënee jóg cër bu nga mën a yëkkati boobu ko utiliser rek boo ko utiliser rek suñu borom daal di def kéewal lan ngay wax seen mbokk sama mbokk handicapé yi xanaa ñu góorgóorlu rek man moom fu ma gis handicapé maa ngi lay jéem a wutal yoon maa ngi lay jéem a seetal def waaw parce que tamit handicap bu nekk ci fauteuil roulant sax war na mën a jaay ginaar war na mën a dem jëli benn xale bu góor fee ci sangal kam ci àll bi indi ko ay ganaar mu congélateur di jaay ganaar yi forcément handicapé dafa war a yalwaan wala déedéet yalwaan kay moom baaxul xanaa nag ku amul pexe nag ku amul pexe moom mooy loolu mais nag moom digal ma ko benn handicap waaw handicapé da ngay góorgóorlu di fekk si la ci li nga ne mais tàllal loxo moom boo ko xasee rek moom day yomb trop yow parce que boo xëyee suba tàllaloo sa loxo sax moom dafay am luy nekk ak yow dalay manqué te loolu baaxul day mel ne genre boobu yow. waaw xam naa man moom maa fa defal publicité rek di wax sama mbokku soxna yi ñuy ñëw fii ci Sicap seet si soxna Awa Aminata Madiou Ba si darab yi nga xam ne macha allah ak laaj yi kon loo xam naa si yóbbuwaale ñu ñëw jël si ko di la jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen émission si bu lu yàgg dara te jërë ngeen jëf mbokk yi